salaatu wa salaamu ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tabarakallahu ñu ngi nuyu mbokk tabarakallahu jullitu àdduna bi yëpp ñi nga xam ne dañuy faral tabarakallahu di bàyyi xel émission bu mag bi di Leral TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen bëgge di leen ñaan yàlla jàmm di ñaan yàlla yi tabarakallahu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñëpp defal leen jàmm ci daraja Seydina Muhammad nuyu xalif généraux yi ci réew mi yëpp tabaarakallaahu nuyu moo leen koo xam ne rek da nga naan ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah tabaarakallaahu maashaa allaa saa su ne nag nii la koy tabaarakallaahu yor ñu nangu la tabaarakallaahu loolu waral ñu toogal ko ci place la ñu tabaarakallaahu bëgg ko bu wér ñaan yàlla yàlla ko jàmm bi jaax gi Seydina Muhammad mu ngi noonu nag tabaarakallaahu émission yor yor yoo xam ne tabaarakallaahu thème yi beneen affaire la thème yoo xam ne li muy tabaarakallaahu taxawee doomu aadama kenn na xamul tabaarakallaahu taxawaay tamit ndax njëriñ yi nga xam ne dañu ko indi tabaarakallaahu ci taxawaay doomu aadama moo tax nag tabaarakallaahu tey jii nag insha allahu taala dañuy ñëw ak yéen nag ci tabaarakallaahu thème bu tedd thème boo xam ne tabaarakallaahu lu jar a bàyyi xel la thème bu ëmb thème yëpp ndax waxoon naa leen ba may wax xasnul xulqi na rafet jukko dafa ëmb thème yëpp waaye nag tey nag damaa tudd makaarimal axlaax muy jukko yu tedd yi jukko yu baax yi jukko yu rafet yi ci façon bu ne nag insha allahu taala loolu na den ci ñëw léegi-léegi insha allahu taala ànd ceeg sunu oustaz sunu xarit muy oustaz Alioune Faye moom dem na ba tabaarakallaahu bërëb bi bërëbam la ndax mbaaxam ndax yaatoom tabaarakallaahu sasal bismillah ñu bàyyi la nga nuyoo alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqima as-sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax téléspectateur leeral tv fa tabarakallahu di leen ziar di leen ñaanal yàlla yàlla doon leen jaam ak sutura xéewal waaye nuyu kilifa diine kilifa aada yi nekk ci biir réew mi fa tabarakallahu ñaanal leen gudd fan gu ànd ak wér macha allah taala dañuy dem ba Tiwaawan fekk sëriñ Babacar Sy Mansour suñu wajuru baax wow macha allah ñaanal ko yàlla yàlla yàlla dooli ko wér dooli ko sutura ak teraanga ba jumaa maam ji mu yeggale ko jàmm ak salaam di sëriñ Muntaxa Mbàkke ak mbooleem xalifa yi nekk ci biir réew mi waaye di nuy waa leeral bu baax a baax macha allah oustaz mhm. yow ñu ngi lay nuyu bu baax nuyoo boo xam ne dañ koy dañ koy beral Mm-hmm. parce que yow da ngaa nekk nit ku baax. Mm-hmm. yaa gën euh, bari xam-xam yaatu. yaa gën yaa gën mën a yaatal. yaa gën yal la jàmm. amiin amiin amiin incha ñu ngi koy ñaanal moom tamit. Uh-huh. la muy dox yàlla na ci yàlla sutura. amiin incha allah xéewal ci barke nabi Mustafa. amiin incha allah sallallahu alayhi wa allah ah thème bi tey am na solo. ñu makaarimal axlaaq. di thème bi nga xam ne. daanaka moo taxoon yónni Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam bu'istu li utammima makaarimal ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. tabaarakallaahu mu ngi noonu Oustaz ñu ngi bég tabaarakallaahu ci teewaay bi. Mhm. ndax moom tabaarakallaahu émission ñu boole waaye nag tabaarakallaahu émission boobu def ba dem ba def ko kóllëre. Mhm. ñu bokk lu ñuy def waaye tabaarakallaahu ñu bëggante. moom dafa baax lool nekk sama xarit ma mhm. bëggee la lool tabaarakallaahu. ñaan yàlla yàlla yàlla defar say mbir bi jaaxle Seydina Muhammad mu ngi noonu nag tabaarakallaahu tey nag thème bi mooy makaarimal axlaax ndax comme ni mu ko waxee yontu yàlla ma xam mat moo ne yàlla daf ma yónni ngir ma matal jukk yi mhm. jukk yooyu nag tabaarakallaahu moom lañ bëgg a waxtaane muy jukko yu tedd yi mhm. daañu dugg tabaarakallaahu ci ñi nga xam ne euh, seen jukko dafa am dévo yëpp tabaarakallaahu ñu waxtaane ko seen jukko yi ñu xam jukk yi yàlla wax ñu orienté wu ci incha allahu taala léegi-léegi mbokk nag tabarakallahu nag képp ku bëgg a participer ci thème bi sa question boo ko yónnee rek léegi-léegi ñu tontu la ci beneen bi ci des tamit nag numéro bi tabarakallahu dina affiché léegi incha allahu taala képp koo xam ne rek tabarakallahu bëgg nga dugal sa question oustaz tontu la ci incha allahu taala boo wootee ñu jël la tontu la ci incha allahu taala ci kàttanu yàlla oustaz Alioune hmm. buñ bëggee xam lan sang-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. wax naa ko léegi dafa wax ne bu'istu li utammima makarim al axlaaq mm-hmm. dañ maa yónni man sayduna muhammad mm-hmm. ngir ma mottali jikko yu tedd yi nga déggee ci ne am na jikko yu baax yu fi nekkoon avant rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi njol màkk ñëwee nag jikko yooyu da ko fay baax yi manqué mu mottali ko Ah, ah, ah, ndax fekkoon na arab yi ne nekkoon nit ñu am jom. Mhm. arab yi fekkoon na lañuy nekk ay nit yu am kàddu. Mhm. bu ñu la nee nangam loolu dañ koy def. Mhm. li manqué ci jamono léegi. moo tax bu ñuy lim sax naafiq. dañoo wax naan ayatul munaafiq salaasa. iza xadasa. lu mu la wax du dëgg mhm. wa isa waada mhm. axlafa mhm. su la lee maa ngi ñëw di ñëw wa isa tumina xaana soo ko wóoloo mu war la jikko yooyu ñu xamee naafiq dal woon a arab yi bu njëkkoon est-ce que parce que yow dëgg woon ci wax nekkoon ay nit yu gëm seen bopp fonkoon seen der kon am na ay am na jikko yu baax yu fekkoon mu rasulullah waaye dafa ñëw mottali ko waaye bu ne makaarimal axlaaq tedd ngay jikko dafa am yoo xam ne nii dañ koy seppi rek teg ko ci taabal bi ñu mu nekk base ci ki bëgg a xam lan mooy tedd ngay jikko bi ci njëkk mooy siddiqul lisaan siddiqul lisaan waa dafa bokk ci makaarimal axlaaq tedd ngay jikko mooy lépp looy wax na doon dëgg ah, yëguloo ne al mus al muslimu laa yakzib yonent bi ne ne ab jullit du fen dëgg la kon da ngay jàpp ne bu njool màkk ne ab jullit du fen mhm. kon jamono bi jullit bi di fen jamono jooju nekkatul jullit Ah, jamono bi jullit bi defee nekkatul jullit. nekkatul jullit bu jógee ah. rek ci dee na ci musiba. Mhm. ndax al muslim laa yakzib loolu yëpp di wax. est-ce que. ab jullit du fen. fen dafa xaraam. te fen moo yëngal arash. kon nag bokk na ci makaarim axlaaq sidqul lisaan maanaam sa làmmiñ bi lépp loo ci wax na doon lu dëggu. est-ce que est-ce que lu jafe la jamono nag. billaahi billaahi. i na ci tedd ngay jikko. i'taa'u saa'il. ki lay laaj nga di ko jox. waaw bu am masaila mhm. fala tanharna yàlla mhm, mhm. ki lay laaj bu ko gëdd xanaa xamoo ne joxe li met metti laaj boo gën a metti dëgg la kon nag bu la yàlla boolee ñu dal laaj ci ñi nga xam ne dañ leen di yaakaar ba di leen laaj waay waay boo mën ta joxe waxal rafet yaruddu man amahu min xaajatin buluhan kamashtaha aw bi maysuurin min alkalimi sama cheikh alxaaji maalin rasulullahi ku mës a ñëw ci moom di am looy wut si ci moom la nga bëgg dina la ko defal comme ni nga ko bëggee wala mu def wa sallam mais nag bu demee ba amul lum la defal moom rasulullah di lay waxal wax ju neex di la defal di waxtaan ak yow ba nga fàtte sa problème. kon nañu roy rasulullah ci loolu ku soxla ci yow dara. bu la ko laajee même boo ko amul la xelam wax ko wax ju dal ju rafet ju tey ba fàtte problème nga yeewi ko mu dem. est-ce que. waaye jàndi ko mu dem wala nga laaj rek dañ leen liggéey nangam nangam loolu bokkul ci tedd ngay jikko. Hmm. moo tax bokk na ci makaarimal axlaaq i'taa'u saa'il ki lay laaj ko jox. Hmm. Hmm. bokk na tamit wa taraxumi alal jaar sa dëkkandoo. waaw ngay rafetal sa diggante ak moom ngeen yërëmante soppante ak sa dëkkandoo am moom jàmm dafa bokk ci makaarim axlaq te di ngay jikko. moo tax yonent bi salaa salaam nee na mbugal ñeen ki nga xam ne ay dëkkandoo dañuy muslu ci moom. allahu akbar am say dëkkandoo sa jikko ñaaw ba fa tabaarakallahu bu toogee ci penc mi waxtaan sax boo nee tëll ñëpp xel yëpp jaxasoo. wala bu ñu doon wax sax boo ne tëli ñu noppi. ñu noppi jikko jikkoo jikko yooyu baaxul te la koy waral ñaar rek la. Uh-huh. mooy nga nekk nit ku soxla wala nga nekk nit ku néeg wala nga nekk nit koo xam ne da ngaa mën a fen. li li gars man ma du du ma nettali waaye lu ma yëg mu siiw. lu ma nettali du ma nettali waaye lu ma yëg mu siiw. yaa koy yaa daa ko nettali ñëpp. waaw jikko ju ba noonu googu waay. <laughs> bokk na ngay jikko yi ci fondamental yi nga xam ne nit ki daf daf ko war xam. Mm-hmm. mooy waqira dayif maanaam di di di teral sab di berneel sab gan mhm. man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir fal yukrim dayfa mhm. ñoom màkk ne ne ku gëm yàlla gën bés penc waay waay boo amee gan teral ko dëgg la addiyaa fa nag salaasa mhm. gan moom ñetti fan la rek su ko paasee nekkatoo gan ci kër nga bokk moo tax ma ngi naan boo ganee ab kër nga ñëw ñu la ñu rayal am xar premier jour bi nga deuxième jour bi ñu rayal la bëy troisième jour ñu rey ñu yàlla la ganaar mhm. bay boo fa bu ñibbi kat dëgg la boo ñibbiwul bu subaa mbaxal mi ñuy añee ngay añee de ah waaw ndax nga ñeenti ñetti fari mat na ah waaw kon loolu bokk tamit ci tedd ngay jikko mhm. wa xusnul xuluq bi nga doon waxtaanee bu yàggul waaw maanaam rafetu jikko kooku tamit mhm. dafa bokk ci makaarim axlaaq ba nga gis ne makaarim moo gën a yaatu moo gën a yaatu booy xool moom mooy li nga xam ne moo ëmb lépp waaw moo tax yonent bi wax ne boo ay soli utam ñoo makaarimal axlaaq axlaaq moo kon moo ëmb mboolem jikko yooyu xam nga yii boo dee chaque par benn benn bu dee dañuy nekk jikko spécial mhm. mais na makaarim nit moom moo leen ëmb mhm. bokk na tamit wasilatu rahim mhm. maanaam jokk sa mbokk dafa bokk ci tedd ngay jikko allahu akbar te yàlla nee na gis nga gis nga mbokk mbokk dafa foor yàlla dafa ko fonk dëgg la dëgg la parce que li tax yàlla fonk mbokk ak li tax nit war a fonk mbokkam mooy boo fonkee sa mbokk li la yàlla tànnal jox la ko dañ caa d'accord boo fonkul sa mbokk mooy li la yàlla tànnal bëggoo ko Mm-hmm. amul kenn ci ñun koo xam ne yow say mbokki bopp yaa ko tànnal sa bopp mm-hmm. yàlla la tànn ne oustaz daam mii day mm-hmm. ci famille bii laa koy boole ñii lay bokkal ak ñii ak ñii ak ñii oustaz daam xëy wëlbati ko nag fonk ñoo ñu bëgg leen sopp leen yàlla ne ah oustaz daam li ma kat neex na ko yàlla ciy mais soo soo leen faalewul nag toppatoo woon li li jëntiwoo leen ah fa tabarakallahu yàlla nag du du bëgg wallaahi kon jokk mbokk dafa am solo te jokk say mbokk yàlla dalay jokk mais bu leen bàyyi yàlla la dëgg la moo tax gis nga yàlla à chaque fois dafay xiir doomu aadama ci loo xam ne bu ko day bëgg mu dugg ca ndax bu ci duggee da ci am yiw mm-hmm. xam nga fi ne loo dal lu ne sa mbokk la koy teg lu ci ëpp dëgg la bëri na lu dal nit ci lu bon lu métti lu mm-hmm. soxor mm-hmm. bari na ay mbokkam ñoo ko koy teg dëgg la de ba pare yàlla wëlbati ko ne la topp na nga leen jokk na nga leen téye lu mu ci jublu est-ce que mooy yàlla ku mu nar loo fay doo liggéey loo dëgg la comme danaa bëgg a fay ëllëg yow al xiyaam fay goo xam ne bu ëllëgee booy dugg aljana da kontaan. Mm. faaw mu teg la natt yi metti ci say mbokk ñu la koy teg ngay muñ natt yooyu di jokk say mbokk di rafet ak seen diggante yàlla gën a gën a gën a kontaan. wallaahi wallaahi kon kon lu lu yéeme la bi ci bi ci des mooy wa maarifatul xaq. Mm-hmm. li saaxib. waaw waaw. Mm-hmm. dëgg bu jotee. Mm-hmm. kii borom dëgg ji. nga xam ne moom moom dëgg ji. nga jox ko dëggam. mooy dëgg de. waaw loolu la ma ne ko wax nga dëgg te loolu lay dëgg. mais mooy dëgg. wallaahi. waaye léegi fi jamono toll da ngay gis. lu jafe lu jafe. mais c'est Oustaz mais léegi loolu. mais mais Oustaz xaalis tax na ñu bëri nangatuñu wax dëgg. di ba bu demee ba fen di tabax kër. di joxe dépense jënd oto bu rafet. ni ñuy waxati dëgg. <laughs> bu ñu demee ba ba ba ba ba ba fen. fen laa wax. waaw su ñu demee ba fen mën a tabax kër. jënd oto takk soxna. fu ñuy ñuy waxati dëgg. ah moo ma jaaxal de. oustaz daal nit ngay àndal. Mhm. di ko dimbali di ko wax dëgg ni di ko orienté teg ko ci woon. Mhm. mu jàppee lan noonu bàyyi la di déglu ña nga xam ne ay fen rek la koy wax. ndax dëgg yi. nit ñi bëggatul ku leen wax dëgg ku leen di jay lañu bëgg. allahu akbar koy àndal boo ko dëgg maa la ko wax doxal tuuti rek léegi ngeen ba yàqoo. <laughs> est ce que est ce que. di ngeen yà man ngeen man ngeen dem dee ba xam ne nag mu ngi ci erreur. waaye day fekk c'est trop tard la lu bëri. wala mu fekk yow nga nekk sax ci beneen yoon ba dootoo ko tàll. kon fa tabaarakallaahu nit bu yàlla namee ci moom yiw da mm-hmm. boo lekk koo xam ne daf koy wax dëgg mm-hmm. moo tax boo amee benn nit boo xam ne da wax dëgg ci sax àdduna mm-hmm. mooyal ci moom jàppal ci moom te xam ne kii moo la yéen a jàpp yi nag moom nangootuñ déglu dëgg déggoo ci dëgg déglu moom dëgg moom soxlootuñu ko seen yoon seen yoon nekkatul ci dëgg comme li nga wax léegi rek bu ñu bu boo commencé ànd ak ñoom ñu yëg ne toujours dëgg nga leen wax noonu la lay jàppee sawaay daal lu ma dugg ma ñëw dama ci orienté naan man yeet nii kooku moom dama koy jël tegee ko ne nee lañ lay tegee tabaarakallaahu te te te te te yonentu yàlla Muhammad wax ne dafa bokk ci jukk yi tedd mhm. ay nit bu ñuy àndee ñu wax dëgg te dëgg dëgg wallaahi wallaahi ñu waxante dëgg bu la tooñee dëgg buñ ko tooñee dëgg parce que lal xàqu xàqu an yataboo te dëgg dëgg dëgg rek yey ñu topp ko te way tayit walil siddoq xaqiqan an yastamoo dëgg rek yey oustaz mhm. ñu déglu ko kon nag lu tee ay ñaari nit ñuy ànd mhm. duñ waxante dëgg xam nga xam nga euh, dafa am euh, dañuy wax ne alxuraan. Mhm. benn saar képp bu ci wàccoon. waaw te mooy wala asri. Mhm. noonu donc bu wàccoon wala asri kese kese wàccoon. Mhm, alxuraan suñ ko appliqué lépp jàpp. dëgg la. dëgg la wala asri. waaw yàlla dina wal asri giñ ñaa ci tàkkusaan. am ngi ne wala asri giñ ñaa ci jamono. ndax al asr. daf di tàkkusaan daf di jamono. ñaari boo ko firee baax na. innal insaana la fi xusrin. yàlla ne doomu aadama mu ngi ci perte. Mm-hmm. mu def istisna ne mm-hmm. illa allazina amanu wa amilu salihat mm-hmm. ba mu des ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf-jëf ji baax yemuñ ca de watawaasaw ñuy dénkante bil xaq ci dëgg watawaasaw ñuy dénkante bi sabr ci muñ da nga ak sa mbokk mu tooñ nga ne ko eh oustaz Dame saa waaye nga de waaye li nga def tegoo ko fenn di du dëgg waaye jaaxaan bu defati lii bu la oustaz daam bu la déggalee baax na bu la meree baax na la na la yàlla doy seede mhm. boo ànd ak daam ñu teg ko lu métti mhm. nga xam ne oustaz mii soo ko bàyyi mu riposté lam koy jural musiba lay doon mhm. kon oustaz yàlla nee na nañu muñ inna allah maa sabir yàlla ànd ak muñ kat muñal boo ñu muñee yàlla fajal la oustaz bàyyi lépp mu suuf muñ mhm. féetewoo yàlla. kon loolu mooy watawaasaw bil xaq. watawaasaw bi sabri watawaasaw bi sabri. parce que sa waaw parce que sa nit di nga toll foo xam ne boo ko dénkul muñ bàyyi ko xolam day yàqu. Ah, ah, ah, parce que léeg-léeg nit ñu tooñ la. ngay fay ba tooñaat bi. mais xam nga xam nga li ma gën a neex ci saar bi. Mhm. mooy yàlla dafa seetee. dafa seetee inna alladina amanu wa amilu. wa amilu saalihaat. léegi nag amilu saalihaat gi. ñooñu la wax ne mooy watawaasaw bi la ak watawaasaw bi sabri. ah dëgg dëgg. allahu akbar. al aalimuuna kulluhum halka. illa al aamiluun. wal aamiluuna kulluhum halka illa al muxlisuun te kat wal muxlisuuna fi xatarin azim est-ce que est-ce que xam nga xaajire ne borom taay tu suluk ba koy wax yaa malikul muluk nee na borom xam-xam yëpp alku nañu mm-hmm. ba mu des ñi jëfee seen xam-xam mm-hmm. mu ne ñi jëfee seen xam-xam ñëpp alku nañu ba mu des ñi ko sellal mm-hmm. te ñi ko sellal ñu ngi ci danger dëgg tax xasanatul abraar waaw sayyiatul muqarrabin dëgg la ba gis nga gis nga gis nga boo amee xam-xam mhm. te jëfewoo ko mhm. yàkki amul xam-xam yi na yem fa yaa aliman ilman walan takun aliman alam yaa ni an taxsan alima qulub looloo jot xam nga gis nga boo demee boo demee ci ñi jàng balaa balaaxa waaw dañuy wax ne borom xam-xam bu jëfewul xam-xam boo koy yedd da ngay mel ne da nga koy jàppee ku xamul dara boo koy weddi boo koy yedd. boo koy yedd. da koy jàppee koo xamul dara. d' accord. parce que li mu xam jëriñu dëgg la dëgg la. buñ yi dëgg la jàppee ko moom comme ñi ngay waxee ñi amul xam dëgg la dëgg la parce jëriñu ko dara. dëgg la dëgg la. kon xam-xam li muy bari bari bari la ca am njariñ mooy nga jëfee ko. Mhm. boo ko dee jëfee te sellaloo ko amul njariñ. Mhm. waaye sellal gi mooy problème bi. sellal est ce que ñu koy sellal mu waree est ce que ñu koy defee noonu. Mm-hmm. bari na ko jàpp ne mu ngi sellal fekk sellalut. dëgg la de. kon sellal yombul. yombul mooy nag makaarimal axlaaq yi yëpp nag saas. Mm-hmm. bu fekkonte ne jëmm la ju taxaw. waaw te jëmm bopp da ca am solo. Mm-hmm. dañuy wax ne bopp bi mooy kersa. alxayaa. alxayaa. moom moom daa jiitu ca lépp moom beneen affaire la. mooy mooy bopp te da jikko yi. xam nga dem bëgg àdduna ala xubbaha rësul xataaya mhm. jamiuha wa yulqiduna zahral wara labibu mhm. hmm? mhm. gis nga euh, ni ko waxtee sax kii makaarimul axlaaq waaw seen bopp mooy kersa bopp bi ci boppam mooy kersa xam nga xam nga ko lu lu lu ko firndeel waaw yonent bi ni dafa wax ne iza lam tastaxyi fasta ma chita waaw bu amul kersa defal lu la neex dëgg la xoolal ko amul kersa masala ma ma ma tàmbale ci jigéen ñi jigéen bu amul kersa. waaw. day jàkkaarloo góor di ko xool ci bët di wax ak moom. ñàkk kersa ngoog. waaw te te jigéen. cey bu njëkk ba cey bu njëkk ba kersa kersa bu njëkk ba. la ilaha illallah muhammad rasulullah. cey oustaz kersa bu njëkk ba. oustaz yaa daan dugg ci kër. xale jigéen bu ñu yëgee ne góor a ngi dugg dañuy daw fatu seen biir néeg. dañuy daw. bu leen seen yaay waxee mayal gan gi ndox bu ñu tàmtee ndox bu ñu ñëw lay sëgg nii bu la joxee ndox mi nii nii sëgg duñ duñ la xool. Mm-hmm. ba nga pare ñu jël wóobitu ko wala gannaaw. léegi dañ lay mbaj boo boo boo boo loolu ñu mbaj ba. ay boo dof dof loo ban leen dama laa nopp. oh. dañ ko jooy ay fan. ndax ñoom baax dama laa nopp moom pour ñoom crime la woon jamono jooju. parce que mais ja jamono jamono ji soppeeku la. dafa soppeeku parce que mais dafa mais dafa soppeeku xoolal doxaane léegi rek gars yi duñ doon doxaane. laa ilaha illallah. te doxaanu léegi nga oustaz wax nga dëgg. bu njëkk ba gars yi bu ñu doon doxaan duñ jàkkaarloo sax. de mu bi. kii day doxaan taxaw yéerin ndaw si nee lay tourné ne daan ko nii. day dañ daan yóbbante sax ay ay ay kàddu. du ko xool <laughs> wala bindante leetar mais fi ne nii da ngay moom ne jàkk. laa ilaha jàkk nga koy def. li gën a garaaw kay mooy xam nga góor sax moo gën a jekk ci doxaan. loolu te nag doxaan daal xaraam moom. dëgg la loolu kay moom lu leer la. waaw mais mais bu fekkee ne fekk na fekkonte doxaan xaw naa rafet. ba xaw a rafet. góor war a doxaan. dëgg la de. mais bu nee ba jigéen ñi doxaan góor yi fu ñu jëm. jigéen ñi. waaw dëgg la de. yegg nañ ci ba léegi sa ustaas doxaan amatul léegi foofu. Ah. ñu bëri doxaanatul léegi. li ñuy def. léegi si ñoo xam ne nag dañuy dañuy ànd di ànd ba miinante rek nekk nekk ci lañ bëgg. <laughs> waaw dañuy ànd rek ba miinati rek nekk ci li ñu bëgg ah loolu moo xew léegi. kon maanaam gars yi léegi waxatuñ dama laa bëgg. ay dama la maa raw yi. ay xaaral sama temps. nekkatuñ ci yooyu. gars yi nekkatuñ ci loolu de dañuy ànd yow rek di waxtaan jékki-jékki lëng la nga daa waxoo dara. Mm-hmm. ñu jékki-jékki kott la waxoo dara. Mm-hmm. ñu daal ah, kon jeex na mat na parce que jigéen moom yooyu yëpp boo ko defee te waxul dara kay mooy. jéem jéemalu la wallaay wallaay moo tax ah, ah, moo tax gaañu léegi da dañ koy jëf dëgg la dëgg la moo tax tedd ngay jikko yi dafa mel ni koo dëpp mm-hmm. maanaam jikko yi ni meewoon mm-hmm. dafa mel ni dañ ko dëpp uh-huh. xam nga dëpp uh-huh. dëpp dëpp ëlbati oh, dañ ko uh-huh. maanaam léegi la Sidi Hadj Malick waxoon ne laqad jalabu li diini kulla balaay dëgg la naa ne maa diina ji indi nañ ci bépp musiba mm-hmm. moo xew léegi jigéen bu demee ba jàkkaaroo góor di ko xool ci bët tuuj ay weenam ba mu kawe. Mm-hmm. xeeñ parfum bu neex. Mm-hmm. sol lu gàttam. Mm-hmm. def lu sexe. ñëw jàkkaaroo da la xool nii. nan la maa ngi nii. da <laughs> ngay euh, góor yàlla. kon moom laa la maa ngi doon wax ci am ba naan. Euh, lépp lu nekkun ayib. waaw wa maa kaana ayban saaro xusnan tawaafuqan. laqad jalabu laqad jalabu li diini kulla balaay. allahu akbar góor ak jigéen dañuy lëngoo ci mbedd mi kenn ni wax dara. dëgg la de. ah. léegi nit ñi dem na fa sax ci mbedd la dañuy akkolantante. ñenn yegg na bay bay fóonante. te fi mu ne nii teeku oustaz. Hmm? boo taxawee naan si yàlla lii la araamal ci góor. Hmm? ak jigéen ñiy ànd. Hmm? kii koy wax dañu naan moom daa xeewi. waxuma waxuma la sax li gën a li gën a garaaw la. dañ naan xeewi na am na lu gën a garaaw lool sax. da ngay nekk oustaz. di jàngat li xew ci jamono. ndax parce que nag boo bëggee gindi nit ñi yee leen faaw nga jàngat li xew ci jamono. mais soo jàngatee li xew ci jamono ba dellu si nag war leen ci yee. Mm-hmm. danaa oustaz moom maîtrise na affaire yi de. Mm-hmm. dañ lay commencé tuumaal. Mm-hmm, oustaz su mu xamee lii. mais oustaz su dul xamee lii. te télévision yi nekk fi. portable yi nekk fi. mooy mbedd mi mooy fa mooy farata gi sax mu xam ko ñëw communiquer nit ñi. Rasul moo ne waxtaanale ak nit ñi. ci euh, jamono jamono bi bi bi bi bi toll euh, jamono boobu. waxtaan leen ak ñoon ca jamono ba. beneen bi ci des tamit wax laa waxtaaleeg nit ñi ci lu tolloog seen xel. te li nga wax léegi te borom balaa ko waxoon. wax day dëppoog mbir ma. day dëppoog mbir ma dëppoog ña koy wax. wax moom day dëppoog mbir ma. wa in yutaabiqu lil xaali fa huwal baliix loolu lim na Cheikh al an fii waxoon. jeex na kon kay tabaarakallaa boo fi bàyyi di ko leneen <laughs> yàq nga say wax da maanaam maanaam da ngay da ngay wax te li ngay wax bu baax da am solo moo tax moo tax ñu ne kersa mooy bopp bi mm-hmm. moo tax jigéen bu ñàkkee kersa mm-hmm. ñàkk na lépp mm-hmm. jigéen. Mhm. bu ñàkkee kersa. Mhm. ñàkk na lépp maa la ko wax. dëgg la. jigéen bu demee ba yegg ci jaay boppam. dëgg la amatul kersa. dëgg la. jigéen bu demee ba bu góor gu yëkkati loxoom teg ci kawam du ko wax dara. Mhm. amatul kersa. dëgg la jigéen bu demee ba nekk ci mbedd mi jàkkaaru góor di wax di xàqataay ca kaw. Mhm. amatul kers jigéen bu demee ba nekk ci public di wax baatam di yéegu ca kaw di ko dégg. Mhm. amatul kersa. jigéen bu demee ba du ko lu ko sol neex. lu ko lu ko neex mu sol. amatul kers di sol lu matul liibar. waxuma sax waa lu matul liibar mais am na ci yenn tubéy yoo xam ne da nga koy sol taxaw ñu xam ne yow lii mooy sa forme lii nga denc. wallaay oustaz wax na dëgg dox ci benn bi nii ñëpp dana xool bët wallaay wax dëgg te ñoo koy tay mais ñoom ñoo ko tay mais xoolal genre ba yooyu noonu genre genre ba nga da nga koy sol ba li nga ci ñu xam ne da nga koo jenc day day formé wu ba ku jàkkaarloog yow yëg ne moo formé wu nii voilà xam nga tey tey suba damay damay déglu euh, Mouhyiddine Samba Diallo mm-hmm. borom xam-xam mag boobu borom kusaanaa mm-hmm. nga xam ne nit yàlla pire la woon Mm-hmm. mu ne bépp jigéen boo xam ne yaa ngi wane say cër ci biti moo xam sa mm-hmm. dënn nga wane moo xam say pooñ nga wane moo xam sa foo mën a wane sa yaram mm-hmm. ngir sarame góor ñi ngir fit naa leen ngir bëgg ñu ñëw ci yow nee na yàlla dina la nattoo feebaru firu doom que mu nattoo la feebaru cancer lim na ay xeetu feebar yu bari ne bu ëttuwul balaa ngaa génn àdduna yàlla nattoo la ko est-ce que te feebar yooyu sax dafa bëri ci ñoon fi mu ne lu tax mu ba du ba du parce que a mën a seen moo da daa baaxul da baaxul. moo tax ba demee ci ab daaw wa dawaaw lim la koy al jawzi nee na. waaw jigéen. waaw yonentu moo wax na jigéen. waaw jumba xam bu ko ñeent fukki góor gisee. waaw dootul jur ku baax. mais moo tax léegi luñ jur léegi. waaw xoolal tik xoolal tiktok bi. xoolal li jur léegi xam nga ni ku taxaw ci ab tiktok jaakaaroo àdduna. ak millions de personnes di la seetaan. nga sollu sexe naan travail maman. dàmpement am ay lu kenn xamul di la cax la cax yi uh-huh. te xaatoo ne fii ak vingt ans ci kanam uh-huh. yàlla mën na laa may nit ku baax ku mel ni oustaz daam uh-huh. mu takk la soxna ci farata yàlla sunna su Muhammad ne la ah soxna si kat yii da nga ko daan sol mais yii nag du sol nu jullit kaay ma dugal ci société bi defar la ku mus a jaar ci yooyu kay daan soxlawu la yaa ngi dégg moom kay na jaar nii rek yaa ngi dégg oustaz si <laughs> nañ ko bàyyi ma jëm ci ah? mbay mbay potaas ma la mais oustaz loolu yokkute ci wàllu diine ah, ah, nga fekk sànq loolu nga jël ko indi ko ci société bi indi ko ci eh? indi ko ci société bi ay moyen la oustaz bu ñu ko bu ñu ko indee ci société bi ñu xool keneen ñu jox ko ko <laughs> moom mu doxal ak moom waaye xam nga ah yu ko wax yonentu moo ne jigéen jigéen. <laughs> jumba xam bu ko ñeent fukk góor gisee dootul jur ku baax. dootul jur ku baax man ma yor sama doom <laughs> maa ngi waajal sama doom bëgg am tabaarakallaahu ñu baax. ma jël uh-huh. di ko boole ak jigéen boo xam ne laa tabaarakallaahu jël na uh, jumba xam ak lépp saam ko ci internet bi. <laughs> ma ko dima di ko takk. xam nga xam nga sax torof fa la yam moom yàlla na ci yàlla musal moom tabaarakallaahu moom moom. xam nga xam nga yàlla dafa garaaw. yàlla mm-hmm. yàlla yàlla du nit. Mm-hmm. parce que gis nga yàlla. soo xamee lu nit rek. da ngay da ngay xam ne keneen la. wallaahi wallaahi maanaam gis nga nit jigéen mën na bon. Mhm. génn jumba xam génn yaramam. génn mhm. léppam ci biti. Mhm. vulgaire bon. Hmm? mel lu ko neex. waaye gis nga mu bu jekkee jekk ba tuub bu tuubee rek lu bon la mu defoon dañ koy effacer ba mu set wécc. dëgg la ilaa man taala kay la yàlla wax. dañu waaj beneen société. beneen société boobu muy dugg nag. fa tabaarakallaahu mën na koo jural nu ne. moo tax mbon. bul ca nekk ba yaakaar ne mënoo baax. dëgg la baax du wees oustaz. dëgg la de dëgg la de internet bi rek xam nga internet bi du dëj. waaw internet bi moom xam nga. xam nga xam nga internet bi moom moom du dëj moom moom moom moom day sax. waaw loolu nag tabaarakallah moom mooy moom mooy problème bi waaye mhm. yàlla yàlla yàlla yàlla defal mbir yëpp. Mhm. bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tabaarakallah mu ngi doon ñu ngi ci thème bu thème bu ama am solo muy makaarimal axlaaq nga xam ne. Mhm. mooy tedd ngay jukki yi. tabaarakallah oustaz départ na léegi jox nañu sidduxul lisaan. muy tabaarakallah làmmañ boo xam ne dafa dëggu carrément. ba ñu xam ne tabaarakallah làmmañ bi dëgg na beneen bi ci jàll yi nag mu jox na irtaau daal ku la laaj nga jox ko Mm-hmm. waaye nag tabaarakallaahu nag di jokk say mbokk mm-hmm. du ci yam tamit nag tabaarakallaahu say dëkkandoor ngay jëflante ak ñoom ñu rafet bañ a boo nekkee ak ñoom boo dajeeg ñoom ci mbedd mi ak ko lal leen mm-hmm. boo duggee seen biir kër gi toog leen toogi leen parce que oustaz am na ñoo xam ne dañuy dajeeg nit ci mbedd mi ngay seen dëkk dëkkandoor ñu akolaat la wax ak yow kafree dugg seen biir kër tooge la ne ci yow wallaay jeex léegi nag kon bokk na ci ak dëkkandoor ngay jëflante ak ñoom mu rafet. Hmm. ndox mi bu ko tuur seen buntu kër. surtout ndox mu salte bi. Hmm. maanaam ndox mi nga xam ne. Hmm. xeeñ na. wallaahi bu ko tuur ci buntu kër sa buntu kër dëkkandoo. àq la àq baaxul. yooyu kenn du ko def. ndox mi nga xam ne tamit nag ndoxu ndoxu ndoxu euh, lu mu tudd. ndoxu foos yeeg. ndox yi nga xam ne waa seen tuur yi. <laughs> bu ko kenn nangoo tuur buntu këram. xaaraam na ci boppam mhm. parce que jullit bi yàlla daf la sàmmaloo sa digganteeg tabaarakallaahu sa àq dëkkandoo mhm. lu jar a bàyyi xel la comme ni nga wax léegi rek boo demee ba say dëkkandoo sib la moom dara gën a ko yées nga daanalee nag tabaarakallaahu ci mun al al alxayaa xayaa moom ku ne xam ne ne kees moom dafa jugee ci alxayaatu bis boo ko ñàkkee moom yàgg néew a yem yàgg néew a yem te kersa nag nañu ko indiwaat ci société bi mhm. kersa gi gars yi yóbbuwoon nañu ko indiwaat. Mhm. boo demee ba ñàkk kersa sax ba ñàkk ñàkk kersa. Hmm. jéem a la am kersa kersa wu am am lu ko rek nax nax lul sa bopp rek. ndax ndax lul sa bopp rek boo demee ba yëg ñàkk nga kersa. Hmm. jéem a la nax nax lu sa bopp rek ngir am kersa. parce que alxayaat la yëtti ilaa bil xayri. Hmm, alxayaat. kersa du indi lu dul yiw yiw kese yiw kese dong moo ko moo moo mooy tabaaraka boo demee ba ñàkk kersa nag yonent moo ne defal la te képp ku ñàkk kerse nag lu ko neex lay def xam nga yonent bi def na ku ñàkk kerse mën na def lu ko neex mhm. waaye loolay dëgg de képp ku ñàkk kersa lu la neex ngay def ñàkk kerse dina tax ngay sol lu bon ñàkk kersa dina tax ngay wax lu bon. dëgg la ñàkk kersa dina tax ngay jëw. ñàkk kersa dana tax ngay yàq der. ñàkk kersa dina tax ngay rambaaj. gis nga de ñàkk kersa dina tax nga dugg baal. Ah. ñàkk kersa dina tax nga fanaan auberge. yooyu yëpp yëpp ñàkk kersa koy waral. wallaahi yal yàlla musal tabaarakallaahu ci ñàkk kersa. Ah, loolu nag tabaarakallaahu dañ ko dañ ko ci doon càmbas rek. yaa ngi nga déplacé nga nga nga ah. nag moom da ko dëtmaloon ci jigéen ñi. waaw jigéen ñi ca ca tabaarakallaahu mm-hmm. uh, dëkk ga. waaw ak tabaarakallaahu. Uh, xam nga dinaa ñëw ci jigéen ndax ñoom ñaar ñoo ko bokk. dëgg la waaw ku ci nekk da ci am sa part de responsabilité boo xam ne da koo war a bay. Mm-hmm. gis nga maanaam jullit ci boppam. Mm-hmm. dafa war a xam ne jullit la. Mm-hmm. jullit dafa war a ragal dëgg la jullit dafa war a xam li yàlla bëgg mu nekk ci. dëgg la jullit dafa war a xam li yàlla tere. xataa booy mooy yàlla sax mooy yàlla gi ngay mooy yàlla war ngaa xam ba daan la ci yàlla teg. dëgg la booy def lu baax. war mhm. nga xam la ban yiw nga ci am. Mhm. loolu dina tax boo dee booy mooy yàlla. Mhm. mooy yàlla bu am na fu mu waroon yegg sax war nga koo mën a wàññi. dëgg la xam daan bi la ci fekk. boo demee tamit bay def lu baax. yiw ba lam lay jural ëllëg dina tax nga loo mën ci lu baax nga def ko. mais gis nga mbokk yi. billaahi wallaahi tallaahi képp koo xam ne fexe nga ba kerse gi def ci yow yàlla def ci yow nga fexe ba dindi ko. ne la wóor ne soobu nga yoonu safara. waaw gis nga kersa bi yàlla def ci yow. boo dof dof loo rek ba kersa googu nga jëm koo dindi da nga diw dafa am kersa. nga dem di ànd ak ñoo xam ne ñoo ñàkk kersa ngir bëgg sa kersa gi dañ déedéet. kersa baax ci jigéen. gis nga booy wër soxna ñu daa am kersa jàppal jëlal. jëlal jigéen bu am kersa mooy jigéen ju baax. jigéen ju am kersa. rom dafay jomba wax. Mhm. ñu naan yaa fi wax lii. dëgg la de. day jomba def ñu ne yaa fi def lii. dëgg la jigéen ju am kersa day day rus sax ñu ñu koy taaj naan ko yaa wax lii diw wala yaa wax lii diw moo tax bu am boo takkee jigéen ju am kersa. daf mhm. lay sëyal sëy bu baax. parce que lépp loo xam ne boo ko defee ñu yedd ko daf koy rus. ba ko def dëgg la te boo amee kerse ba loo def ñu ñu yedd la si loo ko def. Mhm. kon fa tabaarakallaa soo soo bëgg ci yoonu baax. Mhm. kon jigéen dafa war am kerse ba làmminam lu ci àddu mu nekk wax ju rafet. Mhm. wax ju sell wax ju baax gis nga al kalimatu tayyib sadaqa. dëgg la wax ju baax sarax la. te as sadaqatu tutfi ghadaballaa. billaahi sarax dafay fay meluk yàlla. kon di tàmm di wax lu baax am na solo. waaye yàkkamti nga rek lu xew ci réew mi bëgg a génne ni ngalti ngalti di wax ca kaw di yuuxu di tëb di dal. naan yaa xam nangam ak nangam te xamoo tus. gis nga mbokk yi. Mhm. nañu am kersa. nit ñi amatuñ kersa faaletuñu kenn ku ci nekk yaa ngay ci la la neex di def la ngay def bu ko sax da nga naan rus kilifa diine yi. Mhm. wala nga rus sa papa. Mhm. wala nga rus sa yaay ne ah lii ko defee rus naa sama yaay gis ko. mais ñàkk kersa yóbbu la ba ngay saaga sa karamu yaay nag. mooy ngay saaga sa karamu yaay di saaga say sëriñ di saaga nit ñu baax ñi. lépp ci ñàkk kersa rek uh-huh. moo tax kersa dafa am solo ci jullit jullit bu ko ñàkk rek daanaka ab yéeféer nga uh-huh. parce que lu yéeféer dafa rek koy def uh-huh. kon kersa dafa am solo ngi dem ci góor ñi waaw góor ni yàlla bindee góor góoru yàlla war a jëf jëfi góor en tant que góor nga dem ba ba góor buy dox sax ñu koy jaawale ak jigéen góor bu jëfee ñu koy jaawale ak jigéen góor bu waxee ñu koy jaawale ak jigéen ana góor ak rocc ay tuñ ba mu xonq macc ay tuñ ak ah di di. pastaloo ko di kenn xamul mais góor ak rocc tuun ak. pastal. man loolu laa xamul lu mu doon. maanaam affaire jigéen góor da caa war a génn ba set. billaahi xam nga góor lu ñu soxla ci moom. Mhm. xëy liggéey wàcc. Mhm. am diine ju am diine. am mhm. fulla am fayda. nekk góor yàlla. di bañ a dugg ci ay détails. bañ a dugg ci ay waxi caaxaan. bañ a dugg ci ay yu kenn xamul. mais bu demee ba góor ñi bu ñu soloo moog jigéen ñi ay yam. doxul lu gàtt. lu seere lu seks loolu pour lan la loolu pour ñàkk kersa rek gis nga góor wanta wane awraam dëgg la donte dañuy wax ne awra yu góor maa bay na surra wa rukbatay la dalee ca jumbax ba ba ca bëti óom ya wax na ne mooy awra yu waa léegi góor oustaz bu solee loo xam ne yeggul ba ci óom yi hmm. loolu dafa xaraam loolu dafa xaraam nag loolu ko wax gaa yi dégg ko gis ay kilote. waaw kay kilote gi toll kilote boo xam ne. waaw xaajiwul bay jege oom bi. waaw xaajul. waaw nga sol ko di langan langa rek moom ci mbedd mi. waaw ñëwaat nga ne noo ci jigéen la garaaw mais garaawul ci góor. waaw dafa xaraam. xam nga parce que li ko waral mooy ñu bari dañoo jàngul usul. Mm-hmm. dañ naan da ngay gis ñoon ñu da gis sa nit ne la waaw fan la fa fan la xeesal xaraamee. Mm-hmm. nga gis ku la tux fan la xaraamee. Mm-hmm. nga gis kun la sol kiloot fan la xaraamee mm-hmm. mais gis nga boo jàngee usul mm-hmm. moom daf lay jàngal carrément mbir mu nekk lay tax mu xaraam mm-hmm. xam nga dañ ne lépp luy lor doomu aadama xaraam na yow léegi yow kii tux sante mu ngi dem da koy lor dootu am dënn bu baax tux baaxul day sëqat guddi moo tax ñaan tux kër gu tux tuxkat nekk sàcc bu fa dugg sàcc du fa dugg Mm-hmm. da ngay tëb miir mu sëqat rek nga daw génnaat yaakaar ne waa ji nelawul fekk fekk fekk suux maa ko sonal mu ngi ci nelaw leneen mu ngi ci nelaw dëgg lay vivre rek dëgg la ox ox gudul jeex dafa dafa dafa kenn dafa am benn waay boo xam ne dafa yor dafa yor morgo bi mm-hmm. mu ne seetlu naa ne bu ñu am amee néew bu dee du tux waaw une de temps ngi ko génn waaw mais néew bu dul tux deux trois deux heures de temps ba trois temps waaw mën nañu nekk ak moom ci margo bi néew buy tux bu ñu sangoo ba yaakaar ne néew bi mu ngi set mm-hmm. yu ñuul di commencé génn génnaat nee na néew buy tuux boo koy sànni da yëlëb rek di yëlëb. Mhm. ndax yu salte yi ne ci gémmiñ gi di génn. ñu ko fuur yëpp ay génn bu génnul ba jeex du du sotti. loolu nag tabax nee na nag boo ko defee rek ba jàpp ne affaire xet gi commencé waat xeeñ. da kay ma xamal lenn de ndax tux baaxul. kuy tux du dem aljanna de. ah. tuxkat. waaw du dem aljanna. Mhm. waxuma ko nag ngir dama leen yéene safara de. Mhm. damaa bëgg ngeen tuub dellu ci yàlla te bàyyum tux Mm-hmm. tuxkat du te booy nag booy nag booy surtout booy fee booy koñ bi. waaw ñoom jàpp ne ne ku dul tux doo bandi. doo bandi bandi sax dafa. ñoom daal faaw faaw ñu commencé dox tuuti. changé doxin laal cigarette. Mm. doxin la ñuy changé rek. waaw changé it waxin. waaw laal cigarette ñu ne waaw bandi baa ngi. waaw loolu mooy wane makaarimul dem na ñu ne ñu ne ñu ne bandi baa ngi. te dëgg jikko yi te ñoom booy dañuy tux di tux rek. waaw te boo leen laajee lu tax ngay tux ñoon xamuñu ko. de mu ñu la wax lu tax bandi bandi lu ma nga ci yóbbu <laughs> te bandi bandi lu nag soxla wu ci jullit wallaahi. julli da ngay lislaam lislaam lu. wallaahi jullit lu. wallaahi yor jikko yu baax yu tedd. wallaahi mais nag boo ko fa bàyyi di bandi bandi lu nag. yaa bandi yee am. kon amul solo. wallaahi moo tax boo tux baaxul. Mhm. sama morom yi dañuy tux naa tux. Mhm. ah doxul damay tox ngir doon bokk ci eh, société bi. doxul damay tox ngir ne man bokk naa. loo amul njëriñ ngir li may xalaat ngir li may xalaat ma mën koo bàyyi. sëñ Hadj Niass day wax faral di wax ne. ku tux ñetti at xaw ma ñaari at la ko wax xaw ma sax mu ne eh, la nga tux waaw. bu fekkoon da ngaa bëgg a tukki mën nga caa tukki bu doon kër nga bëgg am nga mën nga caa amub terrain ndax da ngay gis ku ku xam ne day xëy tux ñetti paquet <laughs> loolu bëri na loolu da ñetti paquet allahu akbar am na ñuy tuxul ëpp loolu ah tux drogue la gis nga boo xesee ba tàmm seen du ko tàmm day gën di yokk ngay gën di continuer fam la jëmee du baax moo tax ku ko mën a bàyyi bay boo nga bàyyi ko ci teel ku ku am problème gis naa ci benn paa de moom da yoon mille francs war ko mu jëndee lépp ay maat bëroo kay. ah nu muy def. bu ko deful day day day moom tanaan tanaan amaguma dépasse kër ga ndékkee guñ ma ne ko ah waaw. loolu. ci te ko def si ne nii. baaxul kon dama la ñu noonu tabaarakallaahu neewoon nañ tabaarakallaahu ci première partie bi. Mhm. ñu àndoon ak tabaarakallaahu sunu xarit tabaarakallaahu oustaz Alioune Faye tabaarakallaahu ni mu développé tabaarakallaahu makaarimal axlaaq muy jukk yi tedd yi nga xam ne. Mhm. yàllaa ñu ko sant tabaarakallaahu sayyiduna Muhammad sant ñu ko. laaloon laata loolu nag tabaarakallaahu dañuy dellu ci deuxième partie bi ñu ànd ci ak Adja Astou mu ñëw ci question rek incha allahu taala ñu ñëw tabaarakallaahu ci ak oustaz mu leeral question bu soob yàlla. Mhm. Adja Astou bisimilah. oustaz ah euh, d' accord d' accord d' accord kon tabaarakallaahu ñu xaar léegi euh, Adja Adja Adja su ñëw incha allahu taala ñu ñu ñu ñu yeggali euh, Oustaz Alioune tabaarakallaahu ñu ngi woon ci makaarimal axlaaq. waaw muy jukko yu tedd yi jukk yi nga xam ne tabaarakallaahu day gàllankoor doomu aadama. Mhm. jukk yi nga xam ne képp ku ne ci moom. Mhm. na yëg ne tabaarakallaahu yàlla mu ngi effacé wu ci yow ci loxoom. Mhm. lu dul nag tabaarakallaahu nga tuub. parce que wax naa ko fi bii passé ma ne yàlla dafa xaraamal njaalo wax ne oustaz képp kuy njaaloo dinaa la teg ay mbugal yu métti métti ba mu yàgg mu ne xanaa nga tuub boo tuubee daal ilaa man taaba xam nga boo tuubee ñëw rek ma jéggal la comme li nga wax ci jigéen buy def lu bon ne ci tiktok bi lu ne lu ne tabaarakallaahu bu ne ci bu xëyee tuub rek tabaarakallaahu yàlla jéggal ko comme Adja comme Adja Asu ñëwaat nañu dellu ko bàyyi ko mu nuyu Asu bismillah d'accord oustaz maa ngi lay nuyu di hmm. nuyu aussi sa invité bi di ko ziyaar bu baax a baax di ko wax ni waxtaan bi am na solo loolu wante itam di nuyu suñu ay téléspectateur képp koo xamante ne rek yaa ngi bàyyi xel suñu ay programme comme niñ koy defee rek à chaque fois seen émission bi lee di euh, yoor yoor wante itam rubrique bi ñu dippee euh, biir internet ngeen di am possibilité di poser seeni ay question ñu leen koy tontu directement oustaz waaw kon nag tabaarakallaahu ajaa suñu fay la bégee la ko macha allah léegi nag tabaarakallaahu defe naa kon am na ay question yi nga xam ne da nga koy laaj pour mhm. oustaz mën fi man ci euh, mën ko tontu léegi-léegi d' accord comme euh, d' rek ñu dooree ko ak première question bi moom nag nee na oustaz woor lan la ci islam wax oustaz mhm. dégg nga ko dafay laaj woor lan la ci islam wax waaw xam nga war moom baaxul mhm. te yàlla dafa wax ci alxuraan inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin yàlla du jubal pexem warta moo tax olof naan ku war ren ba déwén da da rëddal la dañ la kaa jiiñ waaye defuloo ko ab jullit du war te war sax dafa bokk ci naafiq euh, cadre naafiq yi nga njëkk a tudd ayatu munaafiq talaasa yooyu te la wax inal munaafiqina fi darakil fi darakil asfali min a naar allahu akbar yàlla nee na naafiq ñooy xooñu safara xooñ mhm. jigéen ñi togg ceebu jën xam nañ xooñ te kuy war safara la te kuy war naafiq la. kuy war warkat boo gis naa naafiq la. allahu akbar. te yàlla nee na du ma jubal pexem kuy war oustaz daam boo seqoon nag nit dara. Mhm. ngeen waxtaan ba juboo mi bëgg a def benn affaire ngir bëgg ci réussir nga jariñu moom mu jariñu. Mhm. ñu dem ba ca biir mu am lu mu def ba fexe ba écarté la. nga mhm. ba ko mu dem rek nga xool. tuuti lay pousse ne mbépp ci suuf. dëgg la de. xam nga tax. war jim la war mooy tax muy ese dëgg la. gis nga nit boo ko wóoloo. jox ko confiance mu xëy xëy xëy woor la bàyyi ko jamono àdduna rek. dëgg la xam ne ñun suñu problème mooy dañoo mënut a bàyyi ak yàlla. Mm-hmm. loolu rek mooy suñu problème. Mm-hmm. ma jox ci benn bu gàtt rek. Mm-hmm. pour nga xam ne bàyyi sa bopp yàlla am solo. dafa am benn waay dafay rey yar yar ay ay ganaar. poulailler ganaar yu baare. benn sàcc ñëw rek sàcc gën wàllu ginaar yëpp dem. ba mu ñëw ubbi ngunu kaaf kaaf bi rek xool kaaf nag mooy mooy néeg yooyu def ganaar yi. xool gis genn wàll ganaar yëpp dem. Mhm. mu ne ki jëf jëf jii bàyyi na koog yàlla. Mhm. est que. yàlla rek daal di koy dégg wax ja saxal ca yaramu sàcc ba ay donko ganaar. est que. sàcc ba fees dell gi donko ganaar ma. est-ce que. <laughs> sàcc ba am <laughs> problème di wër ci sëriñ fu mu dem bëgg a faju rek pour bëgg rek donk yi dañ dañu rek. waaw nit moom nit moom boo dee am ay donko ganaar moom bokk do société. waaw waaw muy wër di wër di wër ba gis nag sëriñ bu mat sëriñ. sëriñ bi ne ko yow day da sàcc ganaaru jàmbur moo tax nag daraa bàyyeeg yàlla yàlla saxal sa yaram bi ay donk ganaar mu ne ko waaye nu may def kon mu ne koy da dellu nga sàcc la des sàcc ba dellu sàcc la des ca ganaar yëpp waa ji ñëw xool gisu dara ne fa kii ne daf may fontoo ba mu ne kii ne daf may fontoo fas yéene fajal boppam nag génn ca yàlla uh-huh. Uh-huh. na ca yàlla génn ba set wecc donc lay ruus uh-huh. moo tax gis nga nit ñi bu la tooñee Uh-huh. saa boo jógee ne yaa ngi fayul sa bopp uh-huh. yàlla da lay bàyyi ak ñoom de dëgg la mais gis nga boo ne ko bàyyi naa ko bàyyi naa la yàlla te gëm loolu uh-huh. barki rasulillah yàlla fajal la ba mu ba nga xam ne yàlla mën a faj billaahi billaahi kon mu ngi noonu war baaxul tabaarakallaahu Adja su kon nga dell ci beneen question rek ñu ñëwaat ci léegi-léegi incha allah d'accord ñu ñëw ci euh, deuxième question bi parce que léegi moom oustaz defe naa ni question bii mu posé am na solo loolu mu ne lan mooy noonu parce que gis nañ ñi nga xamante ne sax dañuy way booy way il faut nga wax ci ay noonu yooyu moom kenn du ko déglu. mu ah. nekk nag loo xamante ni euh, dañ koo jël torop torop waxu noonu. dëgg la de. Mhm. noon noon noon noon dafa nekk lu si kon soxla nañ explication da ngay gis koo xam ne oustaz. Mhm. Euh, dafay dafay dafay jël statut rek dugal ko. Mhm. wala nga gis koo xam ne dafa statut. ba mu statut keneen capturé ko naan ko yaa ngi duma sa noon yi. <laughs> wala ngay statut naan sama noon yaa ngi dee. boo ko statee xanaa ko ñi ne ci statut bi ko lii yëpp say noon la. te oustaz kenn moo tax dañoo dañoo yombal noonu moo tax mu bëgg a xam nag. Mhm. lan mooy noonu mhm. xam nga ñun Sénégal dañ naan noonu noonu mais xamuñu noonu. waaw ñun benn noon lañu am. Mhm. te mooy seytaan yi. inna seytaana aduwwun lakum fattaxizuuhu aduwwa. yàlla nee na. seytaan yi nii seen noon bu biir la jàppee leen ko muy seen noon. moom waxul seen noon la rek waaye def na jàppee leen ko muy noonu. waaw xam innama yuridu shaytaan an yuqia baynakum al adaawatu wal bagda fi lxamri wal maysiri wal billaahi billaahi moom la de mooma nee na yàlla nee na seytaane bi bëggul lu dul rek tàbbal ci seen diggante ay bañante xam nga li fii lu fi ne oustaz da nga yëngu ci mbir waaw sa morom di yëngu ci mbir moomu ñooñu ngay jàppee noon de doxul nag doxul pour nga comprendre esprit bi xa Sénégal am laa la ba ko jox gis nga boo bu fekkee na da yow waxtaankat nga ñi nga jàppee noonu mooy waxtaankat yi. Mm-hmm. boo nekkee ab woykat. Mm-hmm. ñi nga jàppee noonu mooy woykat yi. Mm-hmm. boo nekkee am musicien. sa musicien yi sa ni yow nga jàppee ay noonu. boo nekkee fecckat. sa fecckat yi nga jàppee ay noon même boo nekkee caméraman. sa morom caméra yi ngay jàppee noonu technicien sa morom technicien yi. maanaam nit ñi daal mooy nit ku nekk la mu bëgg bëgg ko ko ci féete kaw bëgg ko ko ca jage moom daal da nekk bëgg a nekk leader boppam mm-hmm. te nag mbir nag boo mbir nag boo ca nekkee nag ba nit ñi yëg ne yow li nga nekk daa baax war nga ci am nag la ca roy xanaa dëgg nag lu baax la ñuy roy dëgg la de wallaahi lu am njëriñ la ñuy roy xanaa wallaahi buñ gisee yaa ngi ci mbir gis mbir moom yaa ngi ci am njëriñ mm-hmm. ah, kon nag nañ def ni oustaz daam kat ndax lii mu nekk am na njëriñ léegi bu ñu ñëwee nga bëgg la jàppee ay noonu dëgg la de loolu du noonu gis nga maanaam ay affaire rivalante gis nga maanaam nit sax boo amul ñooy ñooy rivalante doo avancé. Mm-hmm. gis nga boo bëggee avancé boo nekkee ci koñ. Mm-hmm. ma joxe exemple ci ñun ustaas nga nekk ci koñ nekk ustaas di nekk waxtaankat. Mm-hmm. ñaanal yàlla ustaas yi bari. loolu moo la yokk jom. mooy tax ngay gëstu. Mhm. mooy tax nga gën a lii téere yi ngir di gën a bëgg a wax lu xam-xam ngir gën a gën a bëgg a jóg kaw mhm. mais bu ne yow kese yaa fa nekk mhm. loolu wax leen daaw mu ngay wax daawati jéeg daaw ba déwén jéeg loolu kese ngay wax doo ko moom ba sa paas sa yoon di ca nekk sax sa yoon di ca nekk ci da ngay wax sa nekk rek moo tax koo concurrence dafa am solo. mais nii concurrent ak yow nag booy jàppee ay noonu foo jëm. walla wallaahi doxul de. te nag nit boo bëggee noppale ci àdduna saa boo xëyee. del wut ay soppe bul gis noonu gisal ay soppe rek. dëgg la chaque jour de jàpp ne ñii samay soppe la ni dëgg la ñoom jëflanteeg soppe. Mhm. te bañ a xool kenn bëttu noon gis ne koo xool bëttu noonu. Mhm. bu yàggee rek bu nag sa noonu. dëgg la ndax yàlla moo ne wala tajassasu. wala yaxtab ba'dukum ba'da bu leen di gëstu. saas daal mii de sa noonu la. mën xaar naa xool ndax sama noonu la am lépp. te bañ waxu nit ñi booy déglu nit ñi boo leen dee déglu ñëpp say noonu la ñu am na ñoo xam ne bu ñuy toujours ñu ñëw ne la waaji waaji waaji waaji waaji waaji te placé lañ bëgg na waaji waaji waaji waaji te waaji waaji waaji yëpp ñooy waaji ñoom ñooy waaji waaw kay ñoom ñooy waaji ñoom naan la waajeek waaji waaji waaji arab yi nee na man naqala ilayka naqala anka dëgg la oustaz ku la indil information jàppal la yóbbu na la mm-hmm. dëgg la de moo tax noonu dëgg dëgg dëgg la dëgg la man soo man man soo man soo toogee man mm. man bu la yàlla dogalee ba nga toog man di tudd nit ne diw nangam diw nang hmm. ragal naa la man mais si mais ragal naa la ca saa saasi ndax tabaarakallaahu wax jooju nga xam ne ah. da koy wax loolu la du jar a bàyyi xel la hmm. noonu daal tabaarakallaahu gii ñuy wootee du noonu euh, oustaz wax na léegi la ne noonu noonu daal mooy li nga xam ne yàllaa ko wax muy seytaane mooy seen noonu te it jàppee leen ko noonu léegi nag tabaarakallaahu nit kuy dem nag hmm. ba nga dem ba di ko jàppee noon saytaane mooy dugal sa xel li muy dugal sa xel naan ko sa noon la te moom mooy sa noon orienté la ba tabaarkalla ba nga jàppe noonu baal foofu tuuti rek pour wane la nit ñi duñ noonu kenn oustaz billaahi bu la nit bañoon ba nga xam ne kii da laa bañ teral ko rek nga xool boo koy teral mu lay bëgg teral ko rek teral ko teral ko ña def ko fekk ko ci fekk ko mu toog rek nga yëkkati vingt mille jox ko nga dajoo ak a joxaa ko vingt mille. nga dajoo ak a joxaa ko vingt mille. oustaz daa ma fi gën. da safal wax waa yaa ngi. safal wax góor gaa ngi gaa ngi gaa ngi. safal wax borom teraanga yi xoolal moo la pour wane nit ñi bañu ñu kenn seen bopp la ñu bëgg. billaahi boo leen bëggee amal leen njëriñ. Mhm. bëgg la. Mhm. jeex na da ngaa wax lu wax ju am soxla nag nit ñi bañ ñu kenn seen bopp lañ bëgg boo leen bëggee ñu tabaarakallah ñu bëgg la tabaarakallah Adja su defe naa des na beneen question wala si des na euh, ñaari question mm-hmm. euh, ñu ñëw ci euh, troisième question bi moom nee na oustaz parce que moom ci cadre muñ bi lay wax mu ne est-ce que est-ce que muñ bu bari bu yàggee duñ la foog dof muñ bu yàggee duñ la foog dof parce que jamono jii moom muñ bu bari muñ di muñ rek bu yàggee tamit dañuy jaar sa kaw waaw xam nga loolu. Mm-hmm. loolu esprit sénégalais la rek. esprit wala mu ne doomu aadama la nit mooy xalaatee noonu. Mm-hmm. mais gis nga euh, soxna si. Mm-hmm. gis nga ab jullit li ko yàlla taraseel ne ko lii lii la. lii lii lay jur. su ko gëmee. mucc na ba faaw. su ko gëmul nag moo ko indi problème yi koy dal. lan la yàlla wax inna allaha maa saabiri. dëgg la man yàlla maa ngi ànd ak muñkat yi. ah. ba pare waxaane wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabri mhm. na ngeen di dénkante dëgg di dénkante muñ mhm. kon ki am lu metti lool ba ka nga ki nga xam dafa am lu metti ba nga xam ne muñ moo ko war mhm. moom muñ a ko war mais ñi ko wër la la leen yàlla sant yàlla dañ leen waa ji na ngeen muñ loo leen ko renforcer leen ko ci muñ gi muñ gi mu nekk nii na ngeen ko ci renforcer ngeen ko diw muñal muñal rek muñal Mm-hmm. xam nga nit bu demee ba nar a fippu sax boo ne ko muñal mu toogaat mm-hmm. mooy wata waa saw bi sabri googu mm-hmm. te yàlla mu ngi ànd ak muñkat yi yonent bi ne asabru laa yaati illa bi xayr muñ du indi lu ak yiw mais nag kon boo gëmee li yàlla wax gëm li yonent yàlla Muhammad wax yow saxal ci muñ rek te it muñ wallaahu yuhibbu saabiri saabiri la ilaha illa inna allah yuhibbu saabiri kon nag uh-huh. kon faaw kon faaw rek da ngay sax ci muñ moo boo demee ba naan euh, euh, muñ naa ba sonn muñu ko muñ du am ab. mais man li ma ci gën a neex rek. waaw mooy yàlla xool la bëgg la ci muñ. billaahi te yàlla lay fayal bopp xam problème xam nga nit ñi li ñu comprendre mooy. gis nga boo jëlee décision fayul sa bopp ba barki rasulilah billaahi wallaahi tallaahi nit di la tooñ ngay muñ bàyyi sa bopp yàlla ni la yàlla yi fajalee moo gën fuuf ni ngay fajalee sa bopp. dëgg la parce que léeg-léeg oustaz daam mën naa laa tooñ ci secret. Mm-hmm. nga jóg di fayu riposte am noo defee ba ñëpp sikk la. ne oustaz daam yaa sikk nangam nangam yàq sa der ci àdduna fépp nga yàq fa te wallahi yàlla mi ñu tiim xam ne ne maa la tooñ dëgg la yàlla mi ñu tiim xam ne ne dangaa fayu rek waaye nit gisee noonu loolu nag la la yàlla di bañal mm-hmm. nga dugg ci détail ba mu am fu mu la yóbbu mm-hmm. te nag nit boo demee ba mer yenn mer yi mm-hmm. mën na laa jural nga def musiba bu kenn xamul dëgg la na la nit ñi jàppee dof te nga nekk ci kanamu yàlla nit moo gën nga nekk nit ci kanamu nit ñi nekk ak dof ci kanamu yàlla comme bu la kenn nekk fi naan la boo muñul yàgg dañ lay jàppee ak dof wala nit ñi booy muñ dañ lay wili pande déedéet muñal rek te yàlla tax mu muñal bu la yàlla fay nga xam ne yàlla fay na la muñal rek tabaarakallaahu te yàlla tax waaw mu daal daa am fayoru boppam yoo xam ne yonentu nee na woon payooru mu muñ moom kenn xamul nu mu toll yàlla na yàlla saxal ci muñ di muñ ànd ak yàlla inna laa ma sabirin di muñ yàlla bëgg la it tabaarakallaahu day xool gu rëy rëy mm-hmm. xam naa kon defe naa cinq minutes moo ñu dese Adja Astou nga profité jox question bi rek euh, mm-hmm. moom nag sànq xam naa li oustaz doon wax par rapport ak doxaan bu gaaw bi moom ci loolu rek lay wax mu ne oustaz maa ngi rafetlu émission bi mais oustaz est-ce que doxaan bu yàgg bi est-ce que doxaan jar na muy yàgg ndax jigéen ñi dañoo bari loolu macha allah waaw xam nga loolu comme li ngay wax mooy doxaan ci moom daa xaraam mhm. l'islam santaanewul doxaan l'islam dane na nga mhm. labat labat oustaz daam dañ laa bëgg a may soxna mhm. soxna sa mu nga dëkk yoof oustaz daam bàyyi ko yëmbal ñëw ba yoof nuyoo toog xool jàkkaaroo soxna si xool soxna soxna si xool ko ñu waxtaan oustaz daam dellu këram waajur ndaw si daal ne bëgg nga bëgg nga waaj ndaw si na teg jamono jamono bu njëkk mi nag waaye bu léegi danaan la waaw bu léegi moom la waaw moom mooy ñëw la sax yaay moom laa bëgg waaw wala wala yaay ko bëggu ma ko mhm. na ngay dégg mais bu njëkkoon moom mhm. da nga daanaka gis xale bi ne sëgg rek noppi nii rek mhm. xam nga kersa ah as-sukuutu iqrar bu noppee rek xam nga nga xam ne nangu na bu laajee góor gi ndax bëgg nga ñu la waaw ñu takk say ba kenn nit ñoom ñaar bu ne bëgguma rek sëy ba valable la tudd mais doxaan moom daa xaraam mais labat moom yonentu moo ko jàngal yonentu dee ko jàngale mhm. doxaan mii du mhm. tubaab bi la mhm. nga gis kuy doxaan génn deux mois trois mois ñi ay cinq ay cinq ans nekk yow yow nit ki boo génnee moom cinq ans ba feem yi ma am yëpp mu wan la ko boo ko takkee ban feem lay defati loo koy takk la jombalati loo koy loolu lay jombalati waaw da nga ko war kii génn ngeen fu ne dem ngeen hôtel Saly dem ngeen hôtel Ngor ah. hôtel bu ne dugg ngeen fa fanaan fa def lépp waaw yow loolu kay nga takk ko indi. loolu kay tabaaraka loolu kay loolu kay loolu kay tabaarakallaahu macha allah loolu kay tabaarakallaahu yàlla na ci yàlla musal tabaarakallaahu yàlla na ci yàlla mbokk yi nag mu ngi noonu tabaarakallaahu ñu ci cappandal go ndax tabaarakallaahu fi mu ne nii temb li ñu amoon ci waxtu tabaarakallaahu jeex na dañuy bàyyi aja sumu tabaarakallaahu sànni yu gàtt rek daal di tàggatoo incha taala ma jox oustaz ji tàggatoo ñu ñaan bismillah lay remercier waxtaan bi amoon na solo loolu wante itam di remercier suñu ay internet képp koo xamante ne rek yaa ngi doon suivre émission bi la wante itam di remercier ki nga xamante ni mooy faaturaan moo jaar ci boobu bi nekk foofu ca Malika di defar yu rafet loolu macha allah kon dem leen ngeen seeti ko di leen jox nag dig daje rek ba mercredi incha allah. jërëjëf Adja Assou yow Saz. Mm-hmm. bismillah ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw la tàggatoo rek mooy góor ñi nañ soxna yi. takk leen mhm. soxna yi jigéen ñi bëgg nañoo sëy sonn nañ trop dëgg la takk leen takk leen da ngeen yaakaar yàlla yàlla moo yor nit dëgg la alal yorul kenn yàlla moo yor takk leen dëgg la dëgg la jigéen yi sëy tamit ku ci yàlla nattoo wujj mhm. xamal ne bokk wërsëg la jaamu yàlla la téye ko ko suturaal ko dëgg jàppale sa borom kër ndax boo bëggee sa borom kër nag lépp lu mu bëgg da ko ko war a bëggale mhm. kon fa tabarakallahu maa ngi nuyu sama soxna soxna Fatimatu Zahra soxna macha allah taala am soxna subaa wax ko nag ayul waaw déedéet mooy farata ji kon ñu ngi koy ñaanal yàlla ko ñaanal lépp lu mu am yàlla ko yàlla barkeel amiin yàlla defal ko gudd fan defal ko wër defal ko sutura amiin nuyu waa baa ko njéemi yëpp macha allah taala monsieur le maire Omar Ba jiite dëkk ba la na mbégte tabarakallah oustaz Alioune toog yow fii ci tabarakallah plateau bi mhm. ndax yow plateau bi sa plateau la tabarakallah sax mbaax moo ko waral beneen bi ci des tamit nag tabarakallah émission bi jàpp na lool Mm-hmm. waaye nga bàyyi lépp tabaarakallaahu ñëw ngir yàlla ak tabaarakallaahu jëmm ji waaye tabaarakallaahu ngir yàlla mission bi rek tabaarakallaahu mm-hmm. oustaz yàlla fay ci teewaay bi bi yaa ngi si dam moom suñu waay la mm-hmm. li ma wax sànq rek mooy di nga invité nit invité bi nga koy invité dem ba kóllëre juddu ci loolu nag tabaarakallaahu moom lañ séq mën nga invité nit ngeen pare ci émission bi jàll mu jàll nga jàll <laughs> loolu nag tabaarakallaahu la séq oustaz Alioune mbaax la sax yaatu la yàlla defar seen mbir bi jaay si dam Muhammad mboolem jéego boo séq rek ngir jëw ci émission bi yàlla na ko yàlla fay mboolem kàddu boo yëkkati ngir orienté ci doomu adama yàlla na ci yàlla fay mbokki mi ngi doon tabaarakallaahu Ceerno Kan moom la ñu toogaloon tabaarakallaahu ndax ngànt doog moo ko dab tabaarakallaahu baax a baax li ma wax sànq rek al asru maqbulu looloo waral tabaarakallaahu sunu toogaay bi fii waaye ñu bégg ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ñaan yàlla tabaarakallaahu mu defal ñëpp jàmm bi jaagi sidna Muhammad ñu fàttali leen nag tabaarakallaahu le 24 décembre incha allahu taala fële ca yëmbal marché lambada programme abu Aboubacar Ndiaye bu Cheikh Tidiane ki nga xam ne nag mooy nekk ci wàllu animation yi mooy Abdoul Aziz Ndiaye bu jàllee tabarakallahu Oustaz Souleymane Diop bu Cheikh Tidiane mu ñëw waxtaane ka ne Cheikh Tidiane spécial Cheikh Tidiane la insha allahu taala bu loolu jàllee nag tabarakallahu ñu ngi leen di fàttali tamit le 16 ak le 15 fii ci Cambérène danañu xaddara la la le 15 bi insha allahu taala ànd ceeg Serigne Issa Touré ak tabarakallahu mouvement atijaan yëpp responsable Cheikh Cheikh Omar Sy ak mouvement bi ba léegi ñu def tàkkusaan gu rëy journée de prière lay doon journée ñaan lay doon incha allahu taala te suba ga daañu jàng alquran def ay vidéo bu ngoon jotee nag incha allahu taala ñu tabaarakallahu yaatal mbir mi tàkkusaan gi Abdou Aziz ñëw bégal ñëpp incha allahu taala Abdou Aziz Diouf bu loolu jàllee seen mbokk Ahmad Dam ñëw waxtaan leen kan mooy Seydina Mohamed incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu waa Rési ñëpp bégg leen bu baax a baax yàlla yàlla defal ñëpp seen mbir bu jaay rasulullah courant de ma nomination non leeral point net yëg nga sama nomination déedéet ñu ngi ci leeral point net